bakkal ci biir xew mi voilà. d' accord mu ngi noonu alors bu ñu paree foofu nañu waxtaan si li nga xam ni moom mooy euh, xew Viviane moom tamit mu amoon fële sa euh, France gis nañ sax kii di Pape Cheikh Diallo daal di koy partagé woon tamit mu doon li nga xam ne nii euh, rafet la de moom moo nekkoon li nga xam ne mooy bàjjan bi dem ba France daal di koy xewal. <laughs> mu nekk li nga xamante ni acte bu rafet la baay uusa fi waroon na nekk nag ba wayal la bàjjeenay baay xale oh, yee bàjjeenay baay oh bàjjeenay baay alors moom lañ dem sitaani euh, ak ki nga xamee ni bàjjan bàjj Viviane bàjjanam la waaw léegi doom ji moom lan lan la sëriñ kii doomam la euh, waaw doomam la donc voilà doomam la jarbaatam la c'est sa nièce bu fekkee tubaab loolu lay wax c'est sa nièce nièce waaw wolof la wax wolof danaan doomam la. doomam la waaye d'accord na bien nañ seet doomam <laughs> doomam. mariage doomu Viviane. mariage doomu Viviane bi. mais du Dieyna. Hmm? dara Dieyna Bril la doon mariage al Dieyna Balde ma mooy Seynabu man maa jum ne Dieyna. la guerrière Dieyna Seynabu la la euh, <laughs> ah <laughs> damaa laaj de. yaa ngi doon sànni film boobu noonu. Hmm? film boobu yaa ngi ko doon sànni. Zeyna la guerrière. Ah. déedéet. daa ko moo tax alors. bi ne si boobu la mu daal di ñëwaat si teg. <laughs> loolu moo teg lu wax si wéy nga ni wéy ma ay leçon de vie kese la. doomi buur buur la waaye doomi góorgóor la bu dee ci xare yàlla na sa woy wi wëreeloo man dama aye ci biir koñ bi dama la ko ñaan sa bàjjen aye nawle yaa ngi koy seetaan bu mu ñaaw c'est magnifique cette chanson kon kon kon ku nekk war mm-hmm. aye wal sa moome sa bàjjen aye borom lii dafa daw sama yaram oui sérieux non Euh, non seulement way wiñ ci teg ça parle de tout. Mm -hmm. que mi ngi ko naan doom bu ayee bàjjanam moo ayee. parce que bàjjanay baay. bàjjanay baay. waaw loolu Youssou Ndour waxoon. bàjjanay baay. Youssou Ndour da ne bàjjen moo di rakki baay wala magam. Ah, lu xew lu ne ñu ne bàjjan taxaw. bu góor duggee néegu góor bàjjan taxaw wayal ko mbaax. mi jaay di baay di rakkoo baay. bàjjan am na maanaam. fa wayub teraanga la kuy bàjjan jugul yëngu bàjjan salaamaaleykum waaw suñu sagañ. noonu nu mënuy jigéen yaa xam mënuy jigéen yow lu ma deful naa mi yàq na ma rek i eh, salaamaaleykum moomoo man la seen yaay koddu ak yéen yéen ngi yàq xaalis de gis nga naa mi billaahi yow Ousmane yóbbu leen ko yóbbu leen ko studio xaalis bu weex tàll moom moo bañ moom lu ñuy xaar ci nana ah moom yaay booy ndax nga wax sax moom moo bañ de bu ñuy génn fii su ma nekk nanaa dégg nga suñu yaay lu wax. mu naan man. man nanaa ngi dëkk bi mais nanaa ci baag bee <laughs> a ah, wax naa xoolee booy. <laughs> wax naa ko non non il faut ñu produire la mais baat bu neex bi ak classe bi personnalité maa bëgg na naa yow. <laughs> wallaay maa la raw maa la raw sama yaay ji. maa la raw waay yow. wallaay ndeysaan. non na leen yàlla def ak jàmm waaye. amiin waay yaay booy ma sax añ bugguma dara rate ma. ndeysaan <laughs> jërëjëf. ok jërëjëf jërëjëf suñu yaay kon jaag. ndeysaan moom ah, dafa baax dafa gën baax dafa gën suñu yaay ko di man man man dama ko dama ko ruus la ndeysaan waaw gi la cofeel gi la <laughs> mhm. donc euh, te nit bu amee cofeel ci buy wax ak yow sax da nga donc ñu ngi ñu ngi koy jaajëfal bu a yàgg dara du gis studio insha allah man ak man ak euh, nooree nii waaw non que nag ah, bëgg na ko donc dinañ ko def bu soobee yàlla. Euh, xam naa nag dañuy dugg euh, studio je best rek wala ñu dugg biril euh, walla ñu dem. ci sa yaay ji waaw faramaane musique pourquoi pas wala ñu dem ci sa yaay ji. kii waaw. Ah, waaw mën dem prince art at moom benn solo donc mu ngi noonu en tout cas Momo mhm. dama ne la bàjjanay bàyyi mhm. mais tamit bàjjan na ko war a ma ne bàjjen dañ ko dañ koy respecté moom man sama doom yi mag yee ku ma ci respecté wul bal fet bal tàkk ci sa kaw aw ma ci xaj ak seen waaye nag ku leen bëgg laa ku leen yëg laa ku leen fonk laa ku ñimee sonn ci ñoom laa moo tax bu ñu la yabul da koy yëg. waaw bu ñu la yabee da koy yëg di moins parce que boo nangoo sonn ci say doomi càmmeñ nangoo leen a bëgg nangoo leen a fonk. mu gis ni nga àndeek seen yaay gis ni nga fonkee seen yaay ñoom it dañ la koy delloo. moo tax Viviane daal di jóge Sénégal. waaw jël avion dem ba Italie di xewal doomi càmmeñam. daal di koy muur tekk ci kaw lal li gën a doy waar li gën a triste mooy da koo jàpp ci escalier yi di dox ak moom moomoo. <laughs> image bi looloo ci gën a triste man moom dama ko seetaan dama am chair de poule moo tax. ku fonkul say mbokk gis ku fonk mbokkam te mbokk yàlla moo ne alalu yàlla la sama alal la mhm. boo ko fonkee ma fonk la taasukat yi ne mbokk dañu koy la dañ koy laax mais kenn du ko cere ndax boo ko ceree day tas dégg nga ma laax ah. waaw laax mën na tas di laax hmm. kon yow mënoo togg laax ah. dama laaj ku mën a togg ah laax bu tasee nekkatul laax. laay de li laa bu bu tasee rek nekkatul laax. fonde lay doon. fonde sax xanaa tasatul nag xanaa. waaw ah, fonde mooy dina fi dee tas. <laughs> fonde bi dee tas waaw kay mi mhm. bu am solo ci doomu ci doomu càmmeñam déggoo Viviane ci biir waay wi. Mhm. sa bàjjen ayee parce que doom bu ayee bàjjenam a ayee. tey jii doom bu tëddee bàjj na ma koy yëkkati ci kaw lalu jëkkëram walla goroom bàjjen dafa am présence bu am solo te bàjjena lay muur mhm. bàjjen moo la war a muur bàjjen dafa am rôle bu am solo déggoo maa la ko doon wax ci wayu Youssou Ndour bi ne la lu xew lu ne ñu ne bàjjen taxaw bàjjen bu mat bàjjen nag lañu wax waxuñu benn bàjjenu farafeñe wala benn nu bay le waxuñu tamit benn doom boo xam ne tamit farafeñe la. bien sûr. voilà bien sûr. maanaam waaye moomoo respect bi si ñaari côté yëpp la yàlla. dëgg parce que xale bu bi tey bu respecté woon Viviane. waaye tamit lan la ko Viviane wan. respect moomoo du looy jaay du looy jënd de wala da jënd respect da ngay fekk respect muy jaay ñu di ko sax am nga di ko jënd. marché Grand Yoff boo dem da ngay jënd. ah kon seen marché la am waaye ñun laa wax ñun. Mm. man ba ma juddoo. ba suñuy jonn yàlla tey mësumaa gis fu ñuy jaayee respe respect yow yaa koy yow yaa koy incarné ci sa bopp nit ki mën la koo delloo lan moo tax nga rus sunu yaay ko du jàpp baax dëgg ah! ko jàng yow dama lay laaj yaay Ousmane ci respect boobu la ruy taxaw ma laaj la ci ci respect lu waral nga rus sunu yaay koddu jaag parce que dafa baax mbaax la la wan dafa am koo xamante ni dafa dajeeg benn waay mu mu jaar ci digg bi ne ko ne ko yow benn ndaw su jigéen mhm. jàkk taseeg benn waay ne ko yow nàngam nga ñu baal ci kàddu gi caga nga yaa ngi may dégg mhm. waa ji ne ko noo def ba xam ni man caga la mo caga mooy xam moroomu cagaam maanaam pour wax la ne la boo reewee rek am na ku la gën a reew wala am na ñoo xamante ni fi mu toll nii yow. Mhm. ñi ngi leen di bàkkee ne dañoo réew te yow réewuñu ci sa jëmm xam nga lu tax parce que wanuñu la ko wanoo leen ko moo tax. pourtant man yow mi am na naa daa yaru. waaw kay parce que ñooñu yaru laa war a wan. Mhm. que ñoom ñoo ma wan lu tax ma war a yaru ci seen kanam. pour hmm. pourtant dafay toog fii mu di ko wax mu ne. Ousmane daa yaru. dama ne Ousmane day <laughs> toog fii di ko wax dañ may déglu dañ may déglu Ousmane day toog fii di ko wax ne. boo ma laajee ci ku yaru ma yaru comme moom boo ma laajee ci ku réew parce que moom nu ma mel loolu maanaam gis nga ñépp la moomoo tey jii li ngay yaru yaru li ngay noppi noppi am na fooy toll. Hmm. da ngay wane sa jikko nag. non non mënoo doo wane sa moom da ngaa <laughs> da ngaa pour nga mais daal loo mën a xam. moom moom loo loo mën a xam. Hmm. bàjjen bu respecté ay doomi càmmeñam teg leen fa mu war a teg ay doomam jox leen cër jox leen gëdd. dañu ko koy delloo parce que fii koo ne namal def rek nam la def a tax donc Viviane ñu ngi koy ñaanal jàmm ak salaam di ko wax ne ko nii mu def ak ay doomi càmmeñam nii la war a def parce que li waral ñu naan euh, nettali bu rafet dafa jaral dafa jaral sàmm parce que yu mel nii moo tax tey ji ba ci ay sëtaati sëtaatam dañ koy nettalil bés bii keroog ba ma Viviane di teg leen parce que lii maanaam histoire la boo xam ne ñoom dañ koy raconte dañ koy nettalante. Mhm. kenn ku nekk di ko nettali sa moroom sa doom bu màggee nga ne ko keroog bañ may muur sama keroog bañ may teg ci kaw lal ba sa baay say nopp di ma takk maag sama bàjjana àndoon Viviane mu yéeg ak man escalier ya teg ma ci kaw lal ba muur ma. kol ba alxayri gi jiib mu ànd ak man te dara gënul neex nag moomoo. ñuy takk sa doom nga teew dara gënu ko neex mu leer la ni fii bu euh, loolu ñu naan yaay yaay yaay bàjjen koo fase mu dem mhm. loolu dafa neex ñu xam ni kat man mii cër bi ma joxe delloo nañu ma ko tey da koy xool ci yenn taxawaay yi je veux pas citer de mais da koy gis ci yenn taxawaay yii des fois nga gis bàjjen boo xam ne day fier ci taxawu doomam des fois nga gis doom joo xam ne day fier ci taxawu gi ko bàjjanam di taxaw lii lay wane lii lay firndeel donc ñu ngi leen di ñaanal yàlla na suñu borom yàlla euh, boole ci sëy bii nii ci sëy yamu takkee ci aras ba moom ak borom këram du ñu gis leen rugal lu ñu ragal parce que nag euh, ku ku takk ci Viviane euh, man jàpp naa ni jàmm rek ngay am parce que nag moom moo bindoo noonu waaw ku bindoo ni tama ñu tëggee la ñaari boor moom doo gis ci kanamam mukk lenn loo xamante ni inconvénient la wala nga ciy gis mer wala nga ciy gis lenn lu lëndëm euh, parce que ni mu mel noonu la xol bi mel muy taar gi macha allah yàlla na ko yàlla fal cat. jërëjëf merci beaucoup waaw bàjjen daal day taxaw doomi càmmiñam. jërëjëf alors bu ñu paree foofu tamit euh, dañ dem waxtaanee si nga xam ne mooy euh, Yaay Fall Yaay Fall waxati de.